lay fonk def ko ni ab dundam xasaa yi di ñii koy jàng sëñ bàmba sédde ko ku dib jàngkat boo xam ne siiw na te am xorom mbiram yépp daf koo jox sëriñ mbàkke dénku ko sëriñ seexloo sëñ wadd ak fàllu njaay ngi te ibra kebe xaadim kebe yow li maale ko sëriñ daam sekk baay mustapha kebe madina sëriñ baara gay njaareem sëriñ ndam de doy na ko sëriñ bada njaay poofoon sëriñ mbàkke cuuna ngi sëriñ daam géy sëñum di sekk limaale ko sëriñ mbàkke seen njiim jang matar géy ku baax a ngi ma jóob gay ko xam seex ibra ñaa mar de xam na ko sëriñ mbàkke géy mbaylooja alxaaji sekk ngi sëriñ jaga mbay ñaamar ku baax ñépp xam na ko sëriñ seex ture sëñ baara mbay bàcc jaañ gi loor sëriñ fa lu sëy seex wadd sëñ sëy maale ko tebul fàtte dan taalit tebul jaani mi amaat na ñeneen ñoo xam ne jëmbul ma tudd ko xasaayiti sëñ bee da ko belli génne ko ci biir alxuraan moo tax ñi koy jàng topp ko sëriñ mbàkke madina daf daareem di yëkkati di wax ca kaw ci teewaayu baayam waa tundóo di de xam na ko xasaayit bu àndeek alxuraan booba wàcc na ne doom ju ne sañ naa woo fu yaayam mu benku ko ma wax la digganteem ak sëriñ seex nga waaru yow dañoo mel ne lam ak lii fu nuy jëm ñu ànd ko keroog ba nu jàngee nag ba ñëw sëñ bi woolu leen ne nañ ci sëñ ndaam abdourahman mu dénku ko sëriñ daama ngay wax seexu naa mbàkke madina lu dul jaamu rabbul ars yow rekk moytu ko te loo jëf ci duniyaa ji lu sew